thank you nañ ni wax nga ko sànq def nga 15 victoire ku am 15 victoire kooku moom macha allah mais lees est ce que tey pare nga pour may booy yi nga xam te ne tey ñooy prouver euh, may chance ñu prouver non bu ku ku prouvé kay kenn mayatu ko chance ba nga nee prouvé kay jeex na. Ah. ku prouvé boo ñëwee ma bëreeg yow mais mayu ma kenn chance damay entraîné dama ko si bëgg a man tamit da ngay daj coono yu métti. kon ñu naan mag nga. non yooyu wax la rek barki alxuraan karim dese naa at si làmb ji ay at laa la wax. ok kon ay deux ans de sept <laughs> amaguma 40 ans. wax rek gars yi ñooy wax rek barki alxuraan karim amaguma 40 ans. Mhm. mais xam nga coow li moom gars yi bu ñuy wax da nga naan waaw rek man gis naa ñaam dañ ma wax grand. parce que cër la dama koy accepté te bu ñu tegee suñu ay carte d'identité ñoom mag mais dama koy accepté nag ndax cër nit cër du du ndaw. parce que man ñëpp ñëpp laa respecté tamit respect boobu tamit nit ñu dañ ma koy delloo. waaw parce que bugguma yab kenn waaye bugguma tamit ku ma yab waaw. lees beneen bi ñu ñëw seen écurie gis nañ ni bilan école de lutte Balla ngeen def 15 combats. am 7 victoires 8 défaites. bilan boobu nan nga ko gisee. waaw bilan bi dañuy santaat yàlla rek bu baax a baax a baax ndax xamul tax dañoo tegle sept victoire huit defar yi dañ ko teglewaat. lu waral lool. waaw loolu foofu la foofu la nekk nag loolu ñoo ngi koy diagnostiqué ñoo ngi koy seet ñoo ngi koy xool ëllëg mu bañ ñoo la parce que dañ amoon bëreet bu bu baax déparé ko yàlla may ñu si ay combat booy di bëri di daan. ñuy bëri di daan di bëri di daan di bëri di daan dem ba benn moment affaire bi taxaw ay defar di ñëw te yooyu heure bu amee rek mooy am nga loo si yokk. li nga xam ne bokk si woon wala nga am loo wàññi li nga xam ne si la bokkoon léegi loolu nga xam ne da si ëpp dañ koy dindi lu si wàññeeku nag ñu dugalaat ko si biir. les yaa ngi dem yaa ngi dem écurie ba daan nga dem écurie ba. ah mais yow fekk nga ma fa fekkate ma fa. non parce que euh, Lamine ñu koy nuyu au passage. ndax dañ ko laaj ci billan bi xam ñëpp xam nañ ne waa école de lutte Balla Gaye dañ daan bokk ci cinq premiers yi. mais gis nañ fan yi euh, année bee paase tamit da ngeen a wàcc. ren ngeen wàccaat. Euh, Lamine mi ngi naan am na ñoo xamante ni respecté wuñu euh, entraînement yi. écurie boo xamante ni am na ñoo xamante ni dañuy am bu ñu amee combat ba combat la ñuy ñëw. yéen ñeen ñii sax dem ngeen ba benn instant da ngeen daa ñëw pour gunge leen mais amatoo leen sax courage pour ñëw ndax booy yi seen comportement loolu lan nga ciy wax. waa xam nga booy ay xale rek lañ. des fois di nga leen mere mais des fois da ngay xam ne ay xale rek lañ après da leen da nga leen di woo canaliser leen orienté waat rek am li ngay li nga defaat si ñoom wax leen ko ñu xam ne làmb du caaxaan. gis nga boo bëggee am lu kenn dul am da ngay def lu kenn dul def bu mbëri di entraîné benn nga entraîné ñaar bu ñu ñett nga entraîné ñeent ndax ñun ba ñuy entraîné loolu la woon comprendre nga ñun dañu ñëwoon fekk mba écurie yi trois fois la ñuy entraîné par semaine ñun ñuy con ñuy contact trois semaine chaque semaine lundi jusqu'au vendredi duñ bàyyi ba pare nag avant avant contact bu jot trois heures quatre heures lañ daan dem géej ñaa mënuñu dem géej trois heures la fekk si école bi kenn loolu sa yëfu bopp la loolu mooy bonus bi ñun la daan am plus buñ buñ bu loo defee sa yëfu bopp ba ba 5 loolu fàtte nga ko te nga ko fële nga commencé waat a zéro li nga xam ne sa coach moom la lay jël bu fekkee demoo heure boobu noonu boo entraîné ba pare dañ daan pare fii école ba continuer dem fii sunu benn kër grand bu ñuy wax son yi wala buñ wala ñu dem fii joor ga fii terminus car bi nekk guddi gi da ngay entraîné bay xaaju guddi ngay soogay ñibbiwaat kon ñun entraînement rek dañ ko doon dañ ko fonkoon parce que loolu liggéey du la réer dañ daan dem ba mujj gi da ngay jàppante nit sax boo ko daanee sax ñu jàpp ni gàllaaj la fekk liggéeyee bokkul muy ñun ñii ñëpp laajool Maguette Seck mi buñ mosaan xëy suba teel gi nii dem nañ camp sapeur wala boo demee ba jógee géej ba pare dem nañ camp sapeur nekk fa musculation musculation ba ba yenn yi buñ fa jógee fii la ñuy dem kër Père Ba place Père Balla waxtaan tuuti dem fee si kii bi ndeysaan amoon na suñu benn grand bu fa nekkoon Ousmane ñoo ngi koy ñaanal yàlla xaaral ko àjjana bu baax a baax buñ dem ut fa suñu ay mburu ak suñu ay pain au ay keek. dama waaw lekkaat ba suur xaaraat noppaluwaat tuuti kon ne dem gi entraînement daal rek moo nekkoon suñu liggéey jamono yooyu noonu mais booy nag yu bare dañuy ñëw fekk équipe bi taxaw. c'est obligé ñoom it ñu teel a jéem mu nekk star lool moo leen xaw a gën a sonal boo yaa fi nag ñoo ngi waxtaan ak ñoom ñu si bëri man ku ma ci gis par kenn kenn laay jël parce que booy waxtaan si mbooloo mbooloo bi ñu bëri. duñ la dégg dégg pour mu dugg seen bopp sax day jafe mais koo si toogal wax ko ñaari baat. parce que tey mbër boo si tàgg tàllal micro lu mu lay wax sama papa laa bëgg dimbali wala sama yaay mais boo bëggee dimbali sa papa wala sa yaay ngay sacrifié wu. da ngay sacrifié wu xooj sa bopp si lu bëri takk sa biir si lu bëree bëri bëri bëri liggéey liggéey bu tar mu métti lool nga muñ parce que olof moo ne ku muñ muñ ñun lii nii nii non nekkul pour ay caaxaan de barki Seydina Mohamed dañ daan pare entraînement cinq euh, timis continuer dem fële mbapat waaw dañuy dajaloo benn kër mbër sunu kër wala kër commissaire wala kër kenn si gaay dajale lu ñu am bu ñu lekkee ba pare dem duñ sangu de noonu la ñu continuer dem mbapat continuer ko mbapat bi ay cinq heures du matin nga ñëw boo tëddee boo yeewoo koy dem nekk si leneen. kon loolu du ay caaxaan ñoo ngi koy ñaaxaat booy ñu gën a góorgóorlu. parce que du mu wax danoo ñàkk jom dafa xëy na ay xale lañ rek lu lu bari dafa des si seen bopp yi. Ah. ñu ñaanal leen rek ñu gën a joxe seen bopp. joxe sa bopp nangu boo nangoo rek di nga gis parce que ñun peut-être am na luñ dund si làmb am na fuñ jaar si làmb te bëgguñu ñoom ñu jaar fa comprendre nga am na yi nga xam ne tey ñun ñu ko xamee nii buñ ko teeloon xam avant kon tey jii kenn waxatu ko roi bi ba léegi day des ci école bi ba ku nii daf fuy des mais nag ku naagu rek daagu loolu moo ñu daboon te loolu xam nañ ko léegi expérience boobu mu ngi ci ñun yàlla nañ yàlla defal jàmm ba bañ dem ci kanam ba déwén nga xool. absence Père Balla lan la def ci écurie bi ndax gis nañ ni moom am na leen lu mu leen doon yokk ñu koy ñaanal yàlla mu jug ak jàmm ak salaam joindre leen mais absence am nan la def ci yéen. waaw absence am day feeñ par day day feeñ par force ndax ñun tey bu ñu mosaan di daw di bu per Balla nekkee si école bi kenn du nangoo des ginnaaw. mi waaw parce que am na ay mots yu ñu doon wax yi nga xam ne bu ko waxee rek yow doo bëgg a des ginnaaw parce que kenn ko ne da nga bëgg a nekk góor bu ko defee loolu moo daan poussé nag duñu jox courage bi nga xam ne danga daan def ba def loo mënul loolu loolu tey jii ne manqué na fa te bu musaan ñëw. tey dina corriger lu bari xam nga dañ ne xale day taxaw du gis dara. mag jaaxaan di gis lu daw fii ba fële loolu moom moo nekkoon si Père la tey jii nii da xool suñu écurie nga dem nga xool euh, écurie Waalo Père Ali tey xam nga ne absence am feeñ na fa moom ak maam maag Gora Seck tey nga dem écurie Fass Père Mbaye Guèye da ngay xam ne am na lu bari am na lu bari manqué na fa tey noonu la demee mag ñi dañu baax si écurie yi nañu xale yi di jege mag ñi parce que am na ñi nga xam ne dund nañ ko expérience la ñu jëm ko récupérer si ñoom dollu ko si ñoom lu ñu am. moom mën leen a jariñ. Mm-hmm. bala Gaye Gris Bordeaux fan gis nga coow li. Gaston mbër ak promoteur yàgg na fi mais Gaston ak Gris Bordeaux en tant que mbër nan nga gisee coow loolu ba pare. waaw coow loolu mbaax na si làmb ji ndax moo ko jox promo xam nga <laughs> si moom moo koy jox promo de làmb ji boo déggee ñu koy coow ba léegi loolu moom moo tax parce que ñëpp xam nañ bëreeguñ ko léegi. comprendre nga kon bu buñ demee ba koy coow ba fuñ toll ni mu mel ne làmb ji suba lañ koy bëre kon coow loolu am nañ coow coow ak làmb ñoo ànd dañuy coow rek mais mënuñoo tàqali ko gason làmb ji da ko soxla dafa soxla Gris Bordeaux Gris Bordeaux dafa soxla Gaston loolu loolu moom moo tax ko mais loolu moom lu xuloo la lu ñuy régler la mu jeex tàkk parce que réeroo bu ndaw la yomb na lijjanti léegi léegi léegi nga dégg combat taxawaat na gars yi dañ koy bëri si jàmm parce que Balla Gaye mënul ta bañ bëreeg Gris Bordeaux Gris Bordeaux mu sañ ta bañ bëreeg Balla Gaye par force la combat bi dañ koy bëreeg te keneen keneen keneen du ko tëgg ko dul Gaston tamit mais discours euh, Gris Bordeaux ñëpp dégg nañ ko mu ne moom dootul bëreetee Gaston en tant que mbër loolu la nga ci waaw mais Gris yiliful boppam dañ ko yilif dafa nekk si écurie bu nekkee si écurie bi wala bu fekkee joxe na boppam dëgg écurie bi ñoo ko naan giri defal nangam mu def nangam mais quand temps problème bu mu am ak Gaston ñoom ñaa seen problème la giri dafa yaakaar yàlla pour ëllëg yàlla jéggal ko kon mu ne ñoom buñ duggee seen diggante kenn ku ne mu jéggal sa morom waaw. mais combat boobu noo ko gisee euh, première euh, première fois bi ñoom ñaar bëri nañ ak Balla Gaye yow gis nga affaire ni mu demee woon. waaw ah, giri ne Balla Gaye daan ko ñu ne Balla Gaye daan na ko tey ñu ñëwaat pour une deuxième fois ñu bëre. combat boobu nan nga ko gisee. waaw mais lu mu ne Balla Gaye daan ko moo tax deuxième fois bi mu mm-hmm. waaw bii paa Balla Gaye ñëw leeral ko. Mm-hmm. parce que ñoom ñaar seen combat dafa neex xamul ndax mu neex amitié lañ dem ngir indi li nga xam ne kenn xamul nu mu toll Balla kenn waxutu ko xam ne esaat Balla bu bari amitié nu ak keroog nu mu mel boobu moo la première fois lamb bu mel noonu amitié du dëgg combat bu ne jaar nañ fa teg la nañ jël Balla jël Lac de Guiers Tafa jël Maam Njambaan Bombardier jël ne Xaadim Njaay bool leen si benn bis tëgg leen si lamb ji esaat te melul noonu Balla Gaye giri kese ñëw feesal ko noonu dellu kon combat boobu dafa intéressé peuple bi dafa intéressé euh, sénégalais yi kon combat boobu ku ko tëgg am nga mérite ñaari mbër yi tamit am nañ mérite giri champion la du daw du raf Balla kenn waxatu ko ñu bëri fa bëre ba Balla Gaye c'est la première fois mu bëre temps bu toll noonu léegi nag dafa am lu mu bëgg woon Sénégal yi loolu nag si comme retour bi la koy war a mën a parce que dafa dafa blessé woon il fallait que kon bii nag mu ñëw def li nga xam ne daf ko woon si combat bële moo tax combat bi dinañ ko bari si bëri kombaa bu neex xeex bi sax du demee noonu yaakaar demee noonu. du demee noonu bëre bay ëpp te di nga gis bëre bu neex. bëre bay ëpp. bëre bu neex laa di nga ko gis. kon changement bee duñ sax bokk. Mm. incha allahu rabbi. Mm. waaw giri tëlewul de. Mm. giri tëlewul de bëre la de day bëre de ba léegi gisagoo ku toog ci kaw giri mais ragal naa bii pas incha rab rabi dina si la ñuy toog ci kaw. ñoom ñaar moog Balla kat moo gën a ñor bëre. non <laughs> Balla sénégalais yi ñoo wax xam ma tey uude lu mu wax si bëy bu feebar rek dañ naan derbaata man bala munu ma wax si moom. parce que dañ naan lu mu ko jegam moo tax. wala doom la wala waaw loolu la nit ñi di wax. yow ñun dañ naan ñëw ba sa biir koñ dafa tëb bëre si mbapat sa biir koñ fee ba buun dafa bëre si mbapat tey jii nii su ma waxee dara si moom matuma ko matuma ko seede quoi ndax xol bee tax fu may toll si moom. mais sénégalais yi dama nga laaj leen kat moo dàq bëri si làmb ji. Ah, waaw man waxuma de sénégalais yi ñooy wax. waaw doo wax kenn te teg waxoo Balla Gaye ba pare soog teg diw. Mhm. waaw jàpp nga ne Balla Gaye moo dàq bëri ci mbëri. ah mais kenn ku nekk am nga droit wax ku la neex mais man loolu dootuma si wax parce que comme maa ngi si làmb ji. te en plus tamit Balla ñu bokk benn écurie am na yoo xam dootuma ko si wax. moom xam na man xam naa. mais xam naa ne moo giri moo gën a bënn giri bëri ay bëre fopp nag donte giri mbër la bu bu bu qualifié nekkul sax amateur professionnel la ndax niveau bu mu nekk professionnel moom moo fay nekk mais kee dafa am don comprendre nga dafay am loolu dafay am si làmb dafay am ki nga xam day ñëw rek nekk miracle ci kaw nit ñi. noonu la deme Balla noonu la demee ci biir mbër yi. Balla miracle la ci biir mbër boo xoolee sax moom mooy seul mbër bi nga xam ne tey bu bëree mu neex. bu tuusee mu neex bu dekonee mu ne lépp lu mu def mu saf doomu aadama yi loolu yàlla moo ko wàccee ci kaw nit ñi noonu rek yàlla koy ñaanal yàlla lafal ko cat rek incha allahu rabbi musal ko si borom gémmiñu bon yeeg bët yu bon yeeg ci xeex de. waaw mu déggoo lu ma la wax Gris mais bee si xeex bi. bee paase ah bee paase ay ku fañam daa daloon de. ah waaw non kenn werante wu ko ah. mais kan moo dominé. ah ku dominé. kan moo kan moo doon dem ardo di ñëw non ñëpp a kay moom moo tax en daal ah. bëri paase dañu jàppoon ne bu gir bu ñu xeexee giri dina ko dina ko moom si xeex bi si waaw dina ko humilier mais ba ñu xeexee te ñun avant lamb ja xam nag bis bu ñu xeexee giri dina am problème ndax bokkul sax façon xeex yi ñuy xeexee xeex bu jub mënuñu ko bokkul parce que kii gauche lay teg kee droite lay teg arrangé wul giri comprendre nga bii tamit noonu lay demee du arrangé giri te bis bu ñu bëree bu ñu jàppantee nag ñoom ñu wax leneen waaw noonu lay demee.